salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare moo tax daanaka wax ji wax nga ko dama ci sànni ay kàddu yu néew rek ba tey bu ma noppee nga gën koo jàllale nga gën a leer maanaam pousse-pousse yooyu nga xam ne ñi mënta dox dañ moom la yor moom laa bëgg koo xam ne maay si jëwriñ nga wut ci benn andi ko fii ak koo xam ne bëgg nga cee bokk rek tam gannaaw lu baax la ñu ñu dajale ko ñu ñu jox ci jox ko ñi nga xam ne mënuñoo dox welo yi nag man gis naa ne bokkuñu man gis naa ci ay melo yu bari waaye nañ seet yi gën a baax nag gis naa ci yoo xam ne boo ko boo ci toogee say tànk daanaka du tege day lang mën naa mën naa mën mën naa jaar ci mën naa tegu sax ci suuf am na yoo xam ne itam boo ci toogee da ngay am na fooy teg say tànk yooyu nag moo gën a baax moom yooyu moom ku ko mën a wut moo gën euh, ku ko mënta wut it beneen boobu mën a wut te muy bu bu bu baax rek bu bees rek nga wut ko maa ngi ñaanit nag kenn ku dégg wax ji xam ne lu baax rekk lañ ci yublu liggéeyal ci yàlla ak yonent bi ak sëñ Tuubaa ak sëñ Muntaxa mi nga xam ne lu baax rekk ko ñor itam yëpp mooy lu baax naka jekk nag mu ngi ci ci itewoo lu baax waaye nag dafa raw léegi bi mu doonee bi bi dafa rawati nag léegi bi nga xamee nag mooy Sëñ Tuubaa toogaayam bi képp koo xam ne xalaat nga lu baax loo xam ne soo ko defee rek muy mbégteem war nga ko def te moytu lépp loo xam ne lu koy naqari lay doon loolu daal moom laa ne woon ma ma ma sànni ci sama ñaari baat boo noppee sëñ Mor Talla Fall yëggale ko welo yooyu daal laa bëgg mu bari lool nag mu bari lool nag di tàmbalee ci benn ba ci fukk daal ku ko mën baax na ba lu ko ëpp sax dañ koy dajale lépp bu bëggoon naa nag bu fi euh, safar lépp daje bis bu jëkk ci weeru safar ñu tàmbali ko joxe waaw amul nag xëj ak seen ak ci laa bokk ak waruma cee bokk ak mu am naa cee ak nu ma ci am lépp ñëpp ko moom bu fi dajee daal ku bëgg rek ñëwal te buñ ci yeggee itam ku ku ñëw booy jël sa sa sa bos dinañ ci boole wàlle asweccit ah. asweccit waaw ah ci bi baax na ci li dañ ci boole as weccin xaw ma xaw ma xaw nag xaw ma dana balem du bari waaye danañ ci boole daal as weccin eh, am na ñoo xam ne mën nañoo ñëw eh, andi xaalis ne ma bi eh, njëgu weloo ngi nii njëgu njëgu puus puus baa ngi nii léegi nag man xaw ma njëgu puus puus ñaata la xaw ma fu ñu ko jaay puus puus daal laa wax waaw bu kenn andi xaalis yi ma ko jox Euh, andi puus-puus la ku ku ciy def bokk daal di ci ciy def sa sa sa sa sa sa ñax ngir ngir yàlla ngir sàkku tuyaaba na nga andi puus-puus rek waaw